daal di tàmbalee rek ab plan d'urgence boo xam ne nag bu 209 milliards la bu Diourbel soxla ngir suqaliku premier ministre Abdoul mbay nag mi jiite woon conseil interministériel bañ fa doon amal moom moo jottali yéene nguur gi ci tabax rek autoroute boo xam ne dana jóge Thiès jaar Diourbel jëm ba Touba Pape mbay Mbaye ak Bekaay njaay ci ay leeral.

ñu gis ni si ñetti at yi moo jox ci diggante 2012 2013 2014 ci opération yoo xam ne euh, jamono ji ñu ngi koy doxal euh, mu doon nag ci seen njëkk toll na si ñaar téeméer ak juróom-ñeenti milliards ci suñu koppar waaye foofu lañ fas yéene doora rek daate jéem a xool nan lañ def man ko dolli euh, ci yenn ay projet yoo xam ne dañu ko bloqué yeneen yoo xam ne ba fi mu toll nii nas nañ ko rek waaye tàmbali ñu koy doxal. autoroute bi war a dox ci diggante Thiès ba Touba lii itam bokk ci yitte nguuru Sénégal. rechercher ñu jéem xool ci suñu partenaires yi naka la ñu def ba taxawal autoroute bi dox ci diggante Thiès Diourbel ba Touba mu war a toll ci eh, limu ko par téeméer ak ñetti milliards ci suñu xaalis. loolu ñu gis na bid ak bàdd ñoom ku ci nekk wane nga sa yitte ci mbir mi waaye yoon wi dox ci diggante Bambey Baba ba Mexe njëg la toll ci fukk ak juróomi milliards dana ci def suñu kéemtalaay kàttan yee salaat euh, xal wi dox ci diggante Touba Daara Linguère rawatina pàcc bi nekk ci diggante Touba ak Daara ak yoon euh, war ak Ndoyeen. de réhabilitation du ci fàttali yeneen i projet yoo xam ne ba fi mu toll nii ñu ngay wër koppar yi nga xam moom ci war a dugal ba tey uñu càmbar ci jotaay bi lii. ci wàllam moom njiitu réew mi ex ci dëkkum sell bi di Touba niki ci àllarba ji ci bi juróom benn waxtu jot kii di xalif général des mourides Serigne Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké dalal ko ci kanamu kilifa diine gi moom Macky Sall gën a dëggal kàddu démbam muy yéene ji mu am ngir wàññi mandat présidentiel jëlee ko si juróom-ñaar indi ko si juróomi at. te yaakaar ji nga xam ne réew mi am nañ ko ci moom mu mën ko sottal ci diiru mandat bi mu fi toog muy mandat ne juróom-ñaari at lañ ko fal waaye moom moo sàkkul boppam ñu delloo mandat yi ci juróomi at ne ci juróomi at yooyu le bëgg nañ cee liggéey réew mi. Macky Sall na ma jiite ni ki ci alxames ji ci salle de réunion bu gouvernance bu njaareem ñeenteelu conseil des ministres bi ñu tuxal ci diwaan yi.